قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم بكرة في defee القرآن وحنا wax باري باري وحنا نكيب وحنا نقصنا na ne dafa aaje kóllëre la go xam dang ko wara sam wa awfu bi ahdi ahadillahi ida ahadtum waxna ko ci beurep yu bare bare bare siduna ubadatu ibn samit net li na wax ni nun dey lan jaayanteeg ak yunus sallallahu alayhi wasallam moy bay'na ala as sam'i wat-ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin ala an la nunazi'a al amra ahlahu qaala illa an taraw kufran bawaaxan indakum min allahi fiihi burhaan mooy dañoo jaayanteeg yonte bi yonte bi moo leen wax ne li ngeen di jaayanteeg man mooy lu ngeen dégg ci ndigal na ngeen ko daa def di dégg di topp moo xam lu neex la ci yéen walla lu naqari moo xam ci jafe-jafe la fekk walla ci neex-neex te bañ a xëccoo bañ a am lenn looy looy looy diingat itam lii dindi jaayante li ko mën a fecc rek mooy lan mooy ngeen gis kéefër gu wér gu wér a wér a wér moo tax mooy tax ngeen mën a dindi jaayante googu ci gàttal kon gis nañ ne ci lislaam góor ñi dañ daa dajaloo di ñëw di jaayante ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mën nañ ci wax lu bare bare bare te yonte bi moo leen di wan nañuy jaayante benn benn nit ñi dañ daa ñëw di jaayante moom jigéen ñi sax dañ daa def ay mbooloo di ñëw di jaayante moom nekk noonu jenn jenn benn benn jigéen dañ daa ñëw di jaayante moom waaye boo xasee jaayee dafa am lu gàllu ci saw loos mooy moomoto sa bopp danga koo joxe danga nga koo jëbbale te itam mënu la ñàkk itam moom jaayante ndax yonente bi moo wax ne ci xadis bi imaamu muslim net li ne man maata wa laysa fi unuqihi bayatun maata miitatan jahiliya soo faatoo te jaayante woo fenn yow deewug jaahil nga nga faatu wax ju rëy la wax na ko ci waxin yu bari wax na ne man maata walaysa lahu imaamun maata miitatan jahiliya ci xadis bi imaam ahmad net li ak ñeneen ak ñeneen mooy boo faatoo te amul benn kilifa benn ilimaan yoo xam ne moom nga topp ci ginnaawam jaayanteeg moom ci déewug jahil nga dee sunu mbokk yi nga xam ne nag ñoo bokk ñoom diine ji te gisuñu defuñu nii nu def ñoom am na danañ jaayante waaye dañ jaayanteeg buurub àdduna nun nag nu gis ne buurub àdduna yooyu taxutoon yonent bi wax sëriñ su baax sii ñoo taxoon yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ñëw jaayante ak ñoom yonente bi dara wax itam ku xas ba jaayante bul ci dellu ginnaaw mukk bul def lenn lu koy xajamal da caa tëkkoo itam wax ne man xalaa yadan min taatin laqiya allaha yawma alqiyamati la xujjata lahu wa man maata wa laysa fi unuqi bayatun maata miitadan jahiliya boo xasee joxanteeg loxo sëriñ bi ba jaayanteeg moom soo ca delloo ginnaaw ëllëg doo amul lay loolu la yonent bi sallallahu alayhi wax ci xadis bi imaamu muslim net li nga xam ne xadis gënu ko wér boo jaayante itam dafa aaje ni ma ko waxee léegi nga sàmmonte kóllëre googu te ba génn mukk te xam ne itam ki nga jaayanteel dafa am lu mu am ci yow mooy sañ laa digal sañ laa tere lu mu la digal it da ko war a def donte dafa naqari ci yow loolu la sëriñ bi wax moy wa haythu ma amaraka al murabbi famtasil al amra tasil li rabbi li may ag ci sun borom tabaraka taala moy lula la bi digal rek nga def ko wa man ala al ilahi dallaka fa in khalaftahu falil marid tatma'in moy sëriñ bi bu le digale dara bo juwe ak mom rek yow marid nga doto murid marid moy ku moy moy seytaane lañ moy marid ku fetterlu yàlla ñu ci lolou wa haytuma nahaaka an shay'in fala tamil lahu wa an ridan la su la teree itam suñ tubaab di wax ne na nga dal di bàyyi lam la tere bul seetantal bokk na ci màndargay murit tarkul i'tiraadi mutlaqan sëriñ bee ko waxoon sëriñ bi itam wax na tegg nii ñu ànd kilifa itam ak sëriñ bi nga jaayanteel teggin yi nga yi war ci moom yu bare bare la lim na ko dina ju xadaal xaaj mooy na nga ko fonk dama ko wax rek ci wolof neex mu gàtt na ko fonk dayo fonkeel te loo am ci xéewal dee ko ko jox te yàlla tax te di ko fajal ay aajoom di ko liggéeyal te moytu di fo ak di kaf ak di reetaan ci kanamam moytu di wax te laaju la ci kanamam moytu itam di ànd ak moom def ko sa morom te itam lu mu la digal bu la yónnee na nga dal di daw lu mu la tere itam na ko dal di moytu bàyyi fa te waxtu wu ne del wut addiya di ko jox ndax sëñ bi wax ne loolu day tax mu sopp la te bu la soppee sa mbir baax sëñ bi teg ci ne képp ku aju ci sa sëriñ itam dee ko fonk ni nga fonk sa sëriñ moo xam waa këram lañ wala njabootam wala sax ay taalibeem na ko fonk ni nga fonk sëriñ sëñ bi wax ne loolu lépp boo koy def bis dana ñëw mu xool la bëtub cofeel boo xam ne ci la sa mbir di baaxee lii baaxal mbir ci ci xol bobé xoolu yermane bi nga xamné mom la serigne bi xol talibé bi fofé lay bayiko waye serigne sëriñ bi dafa xam ne am na loo ci top ben ben ben nit wala wala wa bil maasi la tuti makhluqa ak mooy yàlla mom bu ci top mindeef mom rasulullah itam sallallahu alayhi wasallam sallam wax itam ci ki jeblu lim wara doxé kam jeblu dafa wax ne alal mar'il muslimi samu wa taatu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah mooy war ngaa dégg te topp lu ñu la digal na ko def lu ñu la tere na nga ko bàyyi ba mu defee mooy yàlla nag laa taa'ata lil maxluqi fi maasiyatil xaaliq kon sëriñ Tuubaa leeral nanu ak njëbbal ak aku jaayante mooy lan ma jeexal nag ci jaayante gi ñuy def nii dafa am ay sekkar yu bari yu ci ne lu rëy la du lu woyof noo ko woyofal rek le waaye lu rëy rëy la lu diis la itam li lay xamal ne lu dis la mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu ne bu mbir demee ba ba jafe day woowaat saxaaba yépp ne leen kaay leen jaayante waat ba ñu jaayante ca sulxul da leen wax ne kaay leen jaayante ci jekk ngir dee tey booba dañoo dem ba jub màkka waa màkka aaye leen dëkk ba mu woo saxaaba yépp ne leen kaay leen tey ngeen jaayanteeg man ci dee ñépp ñëw jaayanteeg moom sayidna Ousmane ma fa nekkuloon nekk biir Màkka dane woon dane dafa jël loxoom bu sell ba ne bii maa ko jaayanteel Ousmane saxaaba yépp ñee Ousmane ci loxoom boobee ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jaayanteel am na ku ñuy wax salamatu ibnul akwa daa jaayante ba noppi yonente bi ne ko kaay jaayante waat muy ñaari jaayante Cheikh Mouhamadul Basir ci minal baaxarim dafa wax ne xam ngeen ne saxaaba du doon naa fekk mukk jaayante gu njëkk ga wér na la tax mu ne ko jaayante waate loolu mbir mu rëy da caane bokk na ci secret jaayante bi mooy li ci ne ci ay mbir am na ci yoo xam ne kenn du ko tudd waaye liñ ci mën a dégg rek mooy aaya bi ma wax léegi inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha ñi kii jaayante yàlla ci boppam lay jaayanteel sëriñ bi bu tegee loxoom mu Cheikh Bamba radiyallahu anhu mi nga xam ne moo fi moo fi nekk rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu tegee loxoom day mel ne sëriñ bee teg loxoom waaye yadullahi fawqa aydihim bu ne woon aydikum mooy yéen ñëpp yónente beeg nit ñëpp dañ ciy dugg waaye ay diihim wax ju réy ngi noonu te yónente bi foofu borom xam yëpp maase nañ ci ne mbooleem ñi ñuy wax nit yàlla yëpp ma nit dana dem ba àgg ba donn ko ci loolee te mas na ko dégg ci beneen aaya bi wax beneen xadis bi wax na fa ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu loolu ñuy wax maqaamul jam'i lañ koy wax maqaamu mu mu diis la mu rëy yonte bi keroog ba wax wa maa ramayta is ramayta walakin allaha rama yooyu kenn mënu ce sori waaye lu wér la ñaareel ba mu am beneen mbir mooy jaayante ngërëmul yàlla da cee ne yàlla dafa wax yonte bi ne ko laqad radiyallahu anil mu'minina is yubayi'unaka gaa yi bi ñu jaayante rek lañu am radwanullahi mooy ngërëmul yàlla li gën a màgg kon jaayante lu rëy la aaya boobu mbooleem secret man mën na ni mi ngi ci laqad radiyallahu anil mu'minina is yubayi'unaka tahta shajara shajara foofu borom tafsir isaari yi dañ koy firee mooy pëstéef nit ki bu yaayantee te ànd ak pëstéef fa alima ma fi qulubihim yàlla moom xam na ne sa xol fa anzala sakinata alayhim wa asaabahum fathan qariba mooy jaayante mooy jur fathu wa maghanima kasiratan yaxudunaha وكان الله عزيزا حكيما اك يلين مبير اي كشوفات اك اسرار مبير يو خامني كي جانتي مو سي مانا جوت واي كو جانتي دو جار وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايضا لمن ويهديكم صراطا مستقيما لول جانتي تي لا سبابو موي يون و غنا لير تا غنا غات سي يون يالا بو جانتي دو سي مانا دو سي مانا جار واخرى لم تقدروا عليها موي mbir yo xam nak xajul fi ci aduna yàlla denc lako bu ëlëk ëllëg bobu lu bare bari ci ay mbir feeñ na ci batay tey bokk na ci xéewali jaayante moy ak sekkar yi ci ne moy keroog sulul xudaybiya bi sahaba yi jaayante ba nopi yoonte bi da wax ne ci hadith bi mbooleem kat hadith yi depo bukhari ak muslim ak ñëpp nett lañ wax ne kérok bañ jaayante ba nopi yoonte bi da ne antumul yawma khayru ahli al ardi yéen tey jii yéen a gën ci mbindeef yi ci kaw suuf te loolu bañ jaayantee la leen ko wax am na ci gi imaamu ahmad ni mu ko nettalee dafa wax ne yonent ba teg na ci laa yadxulu naara ahadun mimman baayaa taxta sajara yéen ñi kenn du ci dugg sawara itam te bañ jaayantee la leen ko wax bokk na ci jaayante dalay aj ci sëriñ bi dalay jokkale ak sëriñ bi day tax nga aju ci sëriñ bi te aju ci sëriñ bi mooy mooy lépp Cheikh Abdul Quddus radiyallahu anhu danaa wax ne li am solo mooy nga fexe ba am li ñuy wax taalluq mooy aju ci sëriñ bi ndax da ko daa misaal ci boo demee ca gaar bee saxaar ga buy déq wagon yi nga xam ne ñoo jàpp ci saxaar rek la yóbbaale ya jëpp ci saxaar ga du leen yóbbaale loolu mooy taalluq mooy yi jàpp ci saxaar gi taalluq boobu nag boo jaayantee def nga jéego ci am ko bu la ko sëñ bi nongulee nga am taalluq donte nag sëriñ Tuubaa wax ne yeneen mbir yoo xam ne dana may taalluq lu mel ne wirdul maaxuus sëñ bi wax ne ku ko jël dana ko may taalluq ak yeneen ak yeneen li lay xamal ni mënta ñàkk itam mooy aju googu ci ci sëriñ bi ak jaayanteeg moom mën nañ ko dégg tam ci beneen aaya ci biir alquran naa Muusa ba ko yàlla yabale ca jaamam boobee mu dem fa di tërbiyewu ci niñ ko mën a waxee rek ba mu ñëwee dane ko damaa bëgg ànd ak yow nga tërbiye ma mooy irshaad ومن يدل الله فلن تجد له وليا مرشدا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا لولا فرن ساك واي دانكو يو منو اند نخ بون اندي فين تبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك من ذكرا بون اندي لاج مانا يونو تربيه اك يونو جاينتي اجيوت لاج بو بري اك جانغالي اك لولو بوكو جانغالي موم دنجي ترلال واي وي موم دي داخني توبل سما غيناو رك فما تاخو nga taxofa bu yagge nga agge ba tey bokk na ci xéewal yi nekk ci biir jaayante googu mooy nit yàlla yépp dëppoo nañ ci ne yowmal xiyam ñaari xeeti atte moo fa am am na ñoo xam ne dañ leen ñoom kese ñu wéet seen borom ba jàpp ne moom kese la la la suñu borom bind waaye am na ñoo xam ne mbooloo lañuy doon ñu atte leen ci ka jiite mbooloo ma te mooy lii alquran wax na mën a nad'u kulla unaasin bi imaamihim yawma naxsurul muttaqina ila rahmani wafdan mooy délégation bu mag lañuy doon mbooloo mu bari la ñu doon am na fu mu wax ne zumaran wasiqa alladina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran mbooloo lañuy doon ñu àtte leen woo leen ci turu ki jiite mbooloo mi nun bu nu yàlla dimbalee nu woonu ci turu Sëñ Tuubaa loolu loolu xéewal gënu koo mag loolu mooy mooy xéewal gi gën a rëy ci àdduna yàlla yàlla na ànd ak moom قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ